jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi di am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck ñu leen di nuyu bu baax sunu mbokk auditeurs yi ak euh, auditrices yi di nuyu Mamadou Diawo Diallo mi nga xamante ni moo nekk ci machine bi mbokk yi tey ñu invité maître Abdoulaye Tine euh, mu nekk avocat au barreau de Paris mu nekk spécialiste des relations internationales. ba pare tamit euh, jiite kuréel gi di union sociale euh, libérale moom la ñu invité tey euh, maître Abdoulaye réew mi FM ma ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di leen jaajëfal ci dalal bi. maître Abdoulaye tin waxtaan bi tey dañu koy daal di doore ak fan yi ñu génn gis nañ ne demoon nga seeti maître Abdoulaye Wade. dinañu waxtaan loolu mais tamit ñu waxtaan point yu baree baree bari mais invitation bi tey soo gisee li ko gën a waral mooy euh, yow sa parti politique bi ak yeneen parti yoo xam ne dañoo nekk ci ko jege ginnaaw loi bi nga xamante ni amaloon nañ ko ci parrainage bi yéen da ngeen a defoon recours maanaam kalaame ji ci fi nga xamante ni mooy CEDEAO ba réewum Sénégal war a wuy ji waaye nag waxtaan bi dañu koy dooree ak audience bi nga xam ne seq nga ko ak Abdoulaye Wade euh, lan moo waraloon nga dem seeti Abdoulaye Wade. waaw lu waraloon ma seeti président wadd euh, d'abord avant tout. Euh, nemmeeku la woon maanaam doxu tànku jàmm dem seeti ko waxtaan ak moom diisoog moom mais bu loolu weesoo euh, waxtaan nañ fa ci ay poñ maanaam question d'actualité mooy question yi nga xam ne ñoo lëmbee Sénégal solol askan bi muy mbirum coronavirus bi muy mbirum projet bi nga xam ne Macky Sall mu ngi koy yëngal na dañu bëgg a nommer maire Dakar euh, wax nañ tam ci ponk ak chartu démocratie ak justice ñu mu nërmeeloo fii ci suñu réew Euh, waxtaan nañ ci aussi ci mbirum comme ni ma la ko waxee coronavirus yi euh, treize étudiants yi nga xam ne ñu nga fële ci Chine yan pexe lañu ñu mën a lal ba ñu dellu si fii ci seeni famille euh, sans askan bi mën ci loru wala ñu indi fi jàngoro ji. waaw ah, maître Abdoulaye Tine yow seeti woon Abdoulaye Wade ngir gën a maanaam euh, safara si nga gën see sotti li nga xamante ni maanaam gën koo boyal ndax bi nga ko seetee gis nañ ne ci la Abdoulaye Wade prononcé wu daal di wax ci lu jëm ci statut mairie bu Ndakaaru wax na tamit ci li nga xamante ni mooy étudiants yi nekk euh, Chine ñu gis ne loolu mu nekk actualité lu tàng tàng est-ce que demoo woon ngir yokk ci euh, xar mi karaw. déedéet loolu ku ko dégg tam xam na ni niruwuma niruwul tam président Wade. président Wade même ba mu nekkee opposant ci heure yi nga xam ne ñoo nekkoon heure yu gën a metti euh, lu mu doon wax sénégal yi moom mooy parewul pour dox ci ay néew pour dugg ci palais euh, bu ñu xoolee euh, ci anam yu mu jëlee nguur gi daanaka néggandiku na lu mat ñaar fukki at ak juróom ba condition yu réunir mu jël ko ku ma xam dëgg tam xam na ne man nitu jàmm laa yàgg liggéey ci àq ak yelleefu doomu aadama même situation yi nga xam ne dëkk bi day dem ba tollu ci tension maanaam ci diggante euh, chaque fois bu nit ñi gisee ni may doxalee ak nu ñuy jëfee xam nañ ni c'est quelque chose bi nga xam ne lépp li nga xam ne mën na fa indi musiba wala balaa dañ ko mujj muslu mais euh, loolu Euh, peut-être seen naataango yi euh, nu ñu rapporté propos wu président Wade yi euh, daanaka am na yi nga xam ne ëpp na ci bon peut-être journaliste yi loolu des fois xaw ma ndax ñoo ko tey wala tey ñu ko mais lu ci mënti am moom mooy demuñu fa woon pour xam nga bi comme di dit wala yokk xar mi karaw Euh, léegi li nga xamante ni jot ngeen ko faa waxtaane moo jëm ci euh, étudiants yi nekk Chine ak euh, yow ndax am nga si proposition ak ndax mën nañoo xam tamit yaa ak Abdoulaye Wade tey ak ban dogal ngeen si jël da ngeen a taxaw pour joxonte loxo yéen ak yeneen réew pour indi solution wala ban taxawaay ngeen ci ngeen ci bëgg indi yéen. waaw taxawaay buñ ci am moom mooy ba ñu toogee waxtaan. Euh, suñu xalaat dafa méngoo ci gis-gis bu ñu am ak pexe yu ñu war a lal pour euh, contrairement mag lu Macky Sall wax euh, naan Sénégal amul doole pour mën a jëli leen on n'a pas les wax jooju yenewul maanaam parce que wax jooju dama jàpp ni sax état waru ko wax parce que état lu njëkk ci ponkam moom mooy ndam tële woon waru ko wone ci citoyen parce que da leen di tiital parce que moom moo leen war a aar euh, ñooñu ci ñun la ñu bokk nekkoon fi ay ndongo ndongoy daara ñenn ñi sax gu gouvernement mu Sénégal moo leen jox ay bourse ñu dem foofu toog ay daanaka semaine ay weer a ngi nii ñu tëj leen parce que dama foog ne moom gëstuwul pour xool nan la fa ñu nekkee maanaam dañ lay da ngay tëju ci néeg bu ndaw parce que ay étudiants lañ yoruñu fa ay kër wala ay apartement yu mag amuñu droit dem même defi seeni course dem dugg ci biti finalement euh, donc da ngay toog di baagante ci benn espace di xalaat léegi lan mooy mujjanteel bi loolu maanaam dafa nekk benn xeetu souffrance bi nga xam ne nit mënu ko bu nit demee ba toll ci diggante bu mel noonu mu ngi doon xaar beneen discours ci gouvernement am que nga ñëw naan leen man dama leen mënuma am aw ah, maay moyen mënuma ko mënuma ko mooy état wu Sénégal déjà wàccoowul ak wareefam parce que maanaam gis na kenn ki nga xam ne ci moom la bokk tollu diggante mu won ko ginnaaw loolu comme état wu Sénégal jëlul ay responsabilité am ñun dañu ne dañuy jël suñu responsabilité bu ci njëkk moom mooy mooy waaw président Wade moom déjà dafa yàgg a am cofeel ak étudiants yi parcours politique am ak àndam ak étudiants yi jarta nettali amul naatable euh, ba mu déggee loolu mbir mi metti ko man aussi mbir mi metti ma parce que mos naa nekk étudiant nekkoon naa bitim réew euh, bañ ci waxtaanee ci tënk moom mooy euh, moom jotoon na ci waxtaan ak ay naataangoom ou en tout cas dina ci dox ay jéego ak ay yeneen naataangoom yi nga xam ne ñoo fi nekk fii nekk au pouvoir pour ñu xool dans le cadre d'une démarche panafricaine nan la ñu mën a dajale suñuy ressortissants ñu rapatrier leen. est-ce que waxtaan ngeen seeg ay experts ñu seen xel maa jëm ci wàllu moo xam ay médecins la wala. waaw parce que président Wade laataa mu cee prononcé wu moom ci média yi daf ci waxtaan ak benn borom xam-xam bu xarañ bu nekk xaritam mu ne ko ban li ma xam moom mooy par rapport ak parce que fa foog ñu natt risque bi. est-ce que ndax euh, lenn li nga xam ne mën na ñëw law fii ci dëkk bi moom lu mu jàpp ci tënk dafa nekk coronavirus bi euh, mënta tas ci dëkk bu tàng bu mel ni Sénégal virus boobu mën fi résister virus bi ñëwagul Sénégal mais tey bu ñu jàngatee ci li am nii coronavirus bi tas na ci ay dëkk wu asi yu bëri mais boo xoolee dëkk bu mel ni Indonésie nga xam ne dafa tàng comme Sénégal nga xam ne dafa tàng mais tàngaay bi dafa humide comme daanaka climat wu Dakar bii ba sànq ci suba gisuñu fa benn kaawu coronavirus maanaam am na ay chercheurs yi nga xam ne ay semaine ci ginnaaw dañ doon ne peut-être indonésiens yi euh, dañu am benn euh, gène bi nga xam ne daf leen ci immuniser mais man damay njort ni lu ko expert boobu wax am na fu mu ko wéer parce que ñu ngi koy gis et que man Indonésie dem naa fa liggéey naa fa donc xam naa que climat bi ci boppam jege na ak climat bu ñu am parce que donc ma jàpp ni loolu mais loolu doyul comme ni ñuy wax ci wolof euh, xoddeeku. balaa ngaa lakkale donc euh, ñun lu ñu wax moom mooy euh, proposition wu président Wade moo nekkoon bu ñu leen jëlee même bu dee dañ leen di mettre en quarantaine ci désert bi. ñu xool ak président mauritanien wala fenn yóbbu ku ci nekk yóbbu say experts say médecins ñu nemmeeku leen ñi nga xam ne dara jotu leen ñu bàyyi leen ñu ñëw ñi nga xam ne dañu faj dañu feebar ñu jël lépp man li ma proposé man man. waaw dund ko ci yeneen expérience. Mhm. moom mooy tey euh, am na ay dëkk yi nga xam ne lépp li nga xam ne solo nañ ko pour gérer treize étudiants yi ñoom am nañ ko te pare nañ tey. pour bu ñu jëlee woon ñooñu Chine ñu jaarale leen ci seen dëkk maanaam ba ñuy ne cëpp wàcc ci avion ñu dugal leen ci hôpital xool leen ñi nga xam ne nemmeeku nañ leen amuñu dara ñu bàyyi leen rawale leen Sénégal bu dee yàlla def na mu am ku ci feebar ñooñu am nañ système de santé bi nga xam ne may na leen ñu traité leen. waaw mais proposition bi euh, maître Abdoulaye Tine mhm. euh, proposition bu am solo la mais est-ce que mën na réussir. sans état di si dugal loxoom. waaw loolu yàgg naa ko def nag ci àdduna bi parce que man ku ma xam-xam ne dama yàgg yëngu ci mbirum ak ak yeleefu doomu aadama mbirum humanitaire euh, am na sax ay ONG yu bëri yi nga xam ne xarañ nañu maanaam yàgg nañu jëli ay nit ci ay dëkk yu am guerre di leen évacuer foofu di leen dem di leen opere tout mais yow pare est am nañu pare pour pour gunge la ñu pare loolu loolu moo tax ma ne gis nga euh, wax ji maanaam ñàkk yëg la du dara parce que euh, waxuma la ne état wu Sénégal de mais bu ñu jëloon juróomi sénégalais yi nga xam ne ay bonne volonté lañ bu ñu góor góorloo mën nañ jël frais wu rapatriement yi benn ñaar moom mooy daa am ay institut yi nga xam ne dañuy yëngu di ci gëstu. parce que ñoom ci seen bopp tey dafa am benn course bi nga xam ne moom la nit ñi di def pour am vaccin wu coronavirus bi ñoom bëgg nañu nemmeeku nan lay mel ci africain nan lay mel ci ñeneen donc tey euh, boo xoolee dëkk bu mel ni Sénégal mën naa tudd relation yu ñu am ak France euh, tey ba coronavirus amee ñaari institut af fii ci Afrique ñoom ñoo ko mënoon a dékku étudier ko muy institut Pasteur bu dakaar ak beneen institut wu Johannesburg boo demee semaine bii passé euh, seen naataango journal Le Monde tabax nañ ci benn article bu yaatu di expliquer benn ce qui veut dire que ñun suñuy spécialiste yàlla may na leen xarañte boobu benn ñaar c'est que dañu am ay relation wu liggéey yi am diggante France ak Sénégal am ay chercheurs yi nga xam ne seen xa seen euh, seen xam-xam def ci match pour jëm euh, yàlla def ko aussi fukki at ci ginnaaw parce que man avocat la mais universitaire la dama xaatimoon benn téere bi nga xam ne académie de droit international moo ko bindoon moo ko publier ñu tuddee ko terrorisme et droit international ba ma ci ko ci laa nekkoon expert gouvernement wu France nekkoon Indonésie Jakarta pour ñu jox ma commission ma def maanaam xayma nan la état wu ASEAN mooy Asie du Sud-Est yi transposé benn résolution bi nga xam ne moom la euh, Nations Unies jëloon mooy mbute mu mbootaay bi nga xam ne moo ëmb kuréelu réew yi. Mm-hmm. Euh, ñu xool temps yooyu jamono jooju daa lenn li nga xam ne moo tiitaloon àdduna bi moom mooy ba attentat wu 11 septembre yi amee dañu wax ni. Euh, prochain attentat lu ñu ciy ragal moom mooy ñu utiliser ay armes de destruction massive déggoon nañ ko 2004 même ba Colin Powell ba ñu bëggee euh, donc euh, attaqué Saddam yooyu lañ ko tuumaal ndaam amul mais en tout cas àdduna bi depuis boobu. Mhm. ñu ngi doon tàggat seen bopp. Mhm. ne tey lu ñuy ragal moom mooy ay mouvement terroriste ñëw jël benn xeetu virus bu garaaw tas ko. ci suñuy dëkk du ñu utiliser ay armes conventionnelles mais ay armes non conventionnelles ma nekkoon ti di ci xelal ay état euh, gis ci ñoom degré wu xarañte bu ñu am anticipation parce que ñoom pare woon nañ pour jàmmaarloo benn catastrophe bi nga xam ne suba da ngay xëy ñu ne la ci métro wu Paris bi am na benn virus bu doy waar bi nga xam ne mu ngi fiy donc lu taxoon ah, loolu lu ma ci bëgg a boobu mooy depuis date boobu. Euh, parce que dafa am benn borom xam-xam bu mag bu ñuy woo docteur Abdelkader Kane. Mhm. Abdelkader Kane moom mooy peeru moom moo bàyyu bombe atomique u Pakistan bi euh, moom dafa amoon ay renseignements yu mu joxoon CIA nekkoo ne am na ay mouvement yi nga xam ne ñu ngi lëkkaloo ak Al-Qaïda yi ñoom jot nañu jënd technologie boobu donc dañu waxatuñu woon ne est-ce que loolu mën na am mais lu ñu doon laaj suñu bopp état yi mooy kañ lay am. léegi infrastructure boobu yëpp ñu tàggat seen bopp. teg ko ba sànq ci suba yàlla def na ni musiba boobu balaa boobu yàlla musal nañu ci mais infrastructure bi ñu ngi ko teg tey donc xam-xam xarañte bu nekk ci àdduna mën na dékku lu ëpp coronavirus. Mm-hmm. donc ñun état la ñu bu ñu demee. demander partenariat ñoom bu ñu ko xamul mën nañ leen wax fu ñuy jublu ak yan bunt la ñuy fëgg ñooñu tey buñ ko defee treize personne du dara ci ñoom. d'accord léegi léegi maître Abdoulaye Tine. Mhm. su dee tey njiitu réew mi moom moo ne euh, amul pexe wala amul ay jumtukaay ngir indi ñooñu est-ce que kooku amati na lu Sénégal yi di xaar ci moom. non man yàgg naa leen ko wax. Euh, avant présidentielle bi ci laa génn taxaw fii ci rajo yi ne sénégalais yi may déglu bu leen xaarati dara ci foog ñun ñu bàyyi xaar coppite ñu d'accord na ñun ñooy coppite bu état deful ñu def ñu organiser wu man dama jàpp ñu ni tey eh, ci jamono yi di ñëw di ngeen ci gis bu ci doxul ay jéego ñun dinañ ci dox ay jéego d'accord Euh, mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM ñu dalal maître Abdoulaye euh, Tine euh, sa seen ndaje mi ak Abdoulaye Wade tamit waxtaane ngeen ci wala joxe nga proposition ci li nga xamante ni liir naa ko ci presse bi kane socialistes yi ak libéraux yi dañu war a joxante loxo ndax loolu mën nga si revenir. waaw loolu jot nañ ci waxtaan am nañ ci aussi gis-gis bu méngoo président Wade nee loolu trouve que seen proposition bu. bu intéressante bu am solo euh, firnaal na ma ne sax ci anam yu mel noonu moo taxoon euh, ñu gañe ndakaar ci seen coalition Siggil Ndakaaru bi ba Khalifa Sall nekk fii et que ay peut-être euh, jaxase moo tax ba politique dox ci ba mu tasoon mais ma ne leen loolu mu ngi suñu ginnaaw li ma jàpp tey gëm ko moom mooy fii Sénégal am na benn partie bi nga xam ne Euh, daanaka fanweeri at moom moo yor Sénégal fii indépendance suñu maam yi njëkk tàbbi ci politique parti socialist la ñu nekkoon ci Senghor ci ñoom Blaise ak ñooñu tout ak ñoom Lamine donc dafa nekk dëkk bi nga parti bi nga xam ne dafa sancu dafa law ci biir Sénégal euh, parti boobu ba yàlla defee Tanor Dieng génn àdduna ba léegi daanaka mën nañu wax ne bato bu amul capitaine tey bu ñu xoolee PDS tam ñu yor dëkk bi lu mat fukki at ak ñaar euh, lay wadd am jaar-jaar ak taxawaay bu mu fi am donc am nañ ay militants yu bëri yu leen di xaar am ay banqaas yu juddu seen wet muy karimiste yi nga xam ne ñu ngi doon am yaakaar Karim Wade ñëw Karim ñëwul mu ngi Dubaay euh, lu ko fa téye du sagoom euh, Ablaye wadd am mag la am na daanaka lu ko desee mu mat téeméeri at bëriwul. Mhm. donc retraité na kenn xaaratul dara ci moom comme nu ma wax moom jeexal na lu des mu ngi ci suñuy loxo ñun ñoo wara dox dox bi. ma jàpp ni tey ñaari force politique yooyu bu ñu lëkkaloo fii amul benn conquête démocratique bi nga xam ne mën na leen a të. parce que ñooñu tey ñi nekk ci appareil yi militants yi ñaa nga fa toog di xaar ñoom lu ñuy xaar mooy ñu wax leen ñu def ñu def. li ma bëgg nag moom mooy tey lépp li nga xam ne ñu ngi koy jooytu ñu fajal ko suñu bopp moom mooy lan ñu ñëw lëkkaloo génnee benn force politique benn doole politique bu bees ñu yaatal ko ci société civile bi et que ñëpp ñu jàpp ni xalifa sàll ci anam yu ñu ko jugé. dañu salfaañe ak ak yelleefam ñu jàpp ne Karim Wade dañu jalgati yoon ñu boole ñu booloo lëkkaloo jël contrôle parlement bi élection législative yi ñu jël ko bu ñu jëlee contrôle parlement bi lépp li nga xam ne errement la mën nañ ko fajal suñu bopp lépp li nga xam ne jalgati la mën nañ ko réhabiliter suñu bopp moo gën ñuy wékku ci nit ki nga xam ne wax na mu deñ mu waxaat mu deñ Euh, jërëjëf euh, maître Abdoulaye Tine léegi ñu ñëw rek euh, ci sa parti bi. Mhm. bala ñoo jàll ci li nga xamante ni mooy loi parrainage bi nga xamante ni defoon ngeen recours kalaame oon ngeen ci CEDEAO union sociale libérale lan moo tax mu am socialiste libéral sa kuréel googu yow. waaw loolu ak li may dox benn la. man dama yàgg gëm ni tey. déjà damay fàttali ni sama statut parti maa ko xaatim en 2014 juróom-benni at ci ginnaaw chaque fois boobu ma nee ñun man social libéral la ñëpp dañu may naan comme Macron ma leen déet ba may ba ma koy xaatim di ko déposé ci ministère de l' intérieur pour mu jox ma récépissé boobu Macron nekkagul ci gouvernement. mais loolu rek dafay firnaat ne tey muy France muy Sénégal euh, sénégalais yi tey li gën a am solo ci ñoom nekkatul ndax socialiste nga. wala libéral nga. lu am solo ci ñoom moom mooy ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yan saafara nga yor nga nar ko indi ci ñoom ma jàpp ni tey dañu war a dépasser clivage idéologique yeeg famille politique yi ñu am benn projet politique pour Sénégal bi nga xam ne day nekk benn spectre politique bu yaatu bi nga xam ne idéologie boo mënti woote liñ ci gis sa bopp famille politique boo mën gis diñ ci bokk ñu ñëw teg ko tënku ko wax ak sénégalais yi wax leen pour seen ëllëg et pas nekk fii di jaxase sénégalais yi ak ñeneen ñi loolu duñ yóbbu fenn. Euh, li nga xamante ni moo jëm ci leneen loo xamante ni waxtaane ngeen ko mu jëm ci euh, statut euh, mairie bu dakaar maanaam dañu koy dañu koy nommé lu mel noonu waxtaane nga ko Abdoulaye wadd ci li presse bi wax kan Abdoulaye wadd pare na pour wàcc ci ci mbedd mi ndax loolu tamit mën nga ci indi ay leeral ak tey ndax yow sa gisin en tant que chef de parti. waaw damay préciser benn affaire waxtaan nañ ci ak Abdoulaye Wade Ablaye Wade d'accord ci léegi nag seen naataango yi ñoo ci yokk ne Ablaye Wade pare na pour wàcc ci mbedd mi bàyyi ci bàkkanam yooyu waxu ko ku xam Ablaye Wade xam na ni quand même dafa mesuré ku ma xam-xam na même bu ma ko Wade waxoon bu ma toogee di wax dinaa am fu ma ko yemale parce que am na ay nawle yi nga xam ne ñu ñuy déglu léegi statut wu Dakar bi ci boppam euh, ni ma ko gisee moom la ko président Wade gisee moom démocrate la man démocrate la juriste la man juriste la avocat la donc am nañu benn gis-gis bi nga xam ne suñu formation may nañu ko. Sénégal fii ci Dakar. Mhm. Euh, daanaka ñeent léegi bu mat lu mat ñaari téeméeri at deux cents ans ñun ñuy fal suñu njiitum commune fii ci Dakar. Mhm. Euh, démocratie dafa nekk. Euh, benn euh, dox bi nga xam ne wartaam dellu ginnaaw yaa ngi may dégg. maa ngi dégg baax dellu ginnaaw. Mm-hmm. nan nga mën a ñëwee nga ne da nga nekk ci benn démocratie bi nga xam ne da nga koy tabax pour mu ñoŋe nga ñëw fi nga xam ne démocratie ponk bu ko laal moom mooy lan muy doole bi moom mooy askan bi yéenay fal yéenay folli ñu xëy rek nii pour ay calcul politique. ñu ne noonoo euh, lu nu bëgg moom mooy euh, président ci boppam mooy tànn maire Dakar loolu yàpp sénégalais yi la loolu c'est un non-sens démocratique parce que amul lenn li nga xam ne mën na ko justifier boo xoolee ba ci seen biir ñi nga xam ne euh, yàlla boo tax ñuy wax ñi nga xam ne dañuy dox ci dëgg nee nañu que Macky Sall sa proposition bi teg ko ci suuf parce que kenn xamul lu muy nirool waa mais maître euh, président Macky Sall am na ñu ne moo nekk ci ginnaaw proposition boobu euh, Aminata Mbengue Ndiaye euh, joxe. Mhm. beneen bi tamit gis nañ président Macky Sall bëggul ko wax ci mbiru troisième mandat. gis nañ tamit ne poste premier ministre jëlee na ko fi est-ce que du dafa am lu Macky Sall ruumandaat lu muy jéem ci suuf loo xam ne. yéen ñi nekk ak moom ci langue yi wala askan bi xamaguñ ko. non moom Macky Sall moom bu waxee en tout xaw ma ñeneen yi mais bu waxee rek xam naa fu mu bëgg a jëm. sa xalaat ci ci loolu ma. ci loolu ciy ñëw ma ne bu waxee xam naa bu muy mbirum coow ñetteelu mandat bi euh, xam nga euh, warta am coow parce que daa am benn woy bu fës fii dañu yàgg woy président de la république gardien de la constitution maanaam moom ci boppam moo war a aar suñu constitution ñi wax yépp lu ñu wax constitution bi moo ko wax dafa ne nit nul ne peut faire plus de deux mandats successifs c'est-à-dire fii ci Sénégal ab nit mënoo def lu weesu ñaari mandat yaa ngi may dégg bu dee Macky sàll nit la jàpp nañ ne nit la te foog naa ne loolu amul sikki sàkka mënta def lu ëpp ñaari mandat benn non dama lay wax uh-huh. euh, daa beneen coow bi nga xam ne avant loolu jéem nañ ko ko moom moo taxaw sax jënn ci ouverture du dialogue bi man baa nga fa woon toog ci kanamam mu ne amatul enjeu man nekkatuma ci njuuj njaaj parce que wutatuma mandat constitution bi def ma tënk benn ñaar ci boppam moom mooy euh, mosu ci am ci sàkk léegi li ma jaaxal moom mooy dafa jékki ñi nga xam ne dañu répété li nga xam ne moom la waxoon wala li nga xam ne constitution bi moo ko xaatim ñu wax loolu ku ci wax walla nga jottali rek mu mer dal dalli la fàdd ma ne ci am na lu mu nar lu mu nar moom mooy gis nañ déjà ci ay wetam ay juristes yi nga xam ne dañuy ñëw naan ñu wii président bu ko neexee <laughs> mën na laaj ñetti ñetteelu mandat ñu ne leen lan ñu naan ñu noo non non rétroactivité euh, ñooñu tontooguma leen c'est l'occasion ma tontu leen wax leen li nga xam ne mosuma leen ko wax mais muy dëgg bu wër péng parce que kenn du ko mën a dindi li ma lay wax. xam nga ñetteelu mandat du lu bees fii ci ab lay wadd lu taxoon Sénégal yépp taxaw temb ne foog mu jóge fii dafa bëggoon am ñetti mandat dëgg la du wala du dëgg donc limitation wu troisième mandat bii laataa Macky Sall di ñëw ci boppum réew mi constitution tëraloon na ko. coppite bi nga xam ne moo am ci durant mandaw Macky Sall coppite boobu nekkul ci limitation wu mandat bi mais ci durée wu bi la maanaam diir gu mandat bi dañ ko jël rocc ko ci juróom ci juróom-ñaari at indi ko gàttal ko ci juróomi at donc foofu amul sax débat wu non rétroactivité moo tax ma ne ñooñu bu ñu yàpp Sénégal yi Euh, jërëjëf mais mais est-ce que euh, yow da ngaa jàpp ne Macky Sall dafa bëgg a def troisième mandat léegi institut euh, maire bu dakaar ak post premier ministre bi yow sa xalaat ci loolu. waaw statut dakaar bi wax naa la ko. lan mooy pertinence bi mu amul benn pertinance calcul politique la tey gis nañ ne xalifa génn na. xalifa mhm. ndaam dañ ko génnee mais bloqué ay droit am comme ni ñu ko defee ci Macky Sall. xam nañ ne bu xalifa jàppale nit kooku day nekk maire maanaam même bu mënul nekk bu ñëwee ne man ci laay campagnal bu ko campagnalee ñoom ils seront en donc loolu la ñu bëgg a anticiper. xam nañ ne fii boo ñàkkee Dakar daanaka contrôlé too dara parce que xalifa bu nangu woon deal buñ ko proposé xalifa du dem prison mais parce que xalifa dafa taxawoon pour jàmmarloog ñoom. mais moo ko gagné non présidentielle yi. non mais moom laa la wax loolu parce que lu lu mu def xam na ko mu jaay yëpp mu ngi leen woon téye dàq Karim jàpp ci ñëpp ñi nga xam ne mënoon nañ koo euh, ah. mettre en tuy mu problème moo nekkoon objectif am amaat beneen mandat tey xam na ne donne bi changé na parce que nit ñi teg nañ ko pression ba bàyyi na Karim bàyyi na xalifa moo loolu boo tax ma ne leen que ñooñu. Mm-hmm. même bu ñu ñëwul. Mm-hmm. seeni appareil foog ñu taxaw jàmmaarloo tabb keneen. Mm-hmm. solo si moom mooy tey. ñu nanguwaat doole ji parce que askan bi moo yor doole ji léegi moo tax ma ne la statut boobu calcul politique donc la parce que kenn mënu ko justifier d'un point de vue démocratique parce que ñëpp xam nañ ne du li nga xam ne day ñoŋal suñu démocratie bu dee ñëpp gëm nañ ne démocratie dafa war a jëm ci kanam et jamais en en arrière. d'accord mais xamaguñu élection euh, euh, locale yi euh, kañ la mais est-ce que yow tey maitre Abdoulaye Tine pare nga. pour euh, sa proposition bi nga dox ci ay jéego ñi ànd ak Khalifa sàll ak ñi ànd ak euh, Karim Wade joxante hmm. loxo lëngoo. ngir élection euh, locale ak élection législative. waaw mais loolu wax naa ko loolu moo nekkoon sensu sama démarche sama gisee aussi ak Abdoulaye Wade ci fan yi di ñëw dinañ dox ay jéego rencontré Khalifa Sall. bu ma ci paree dinaa def déclaration bu mag bi nga xam ne dinaa ko jëmale ci sénégalais hmm. dinañ ko fësal. et que dañuy continuer di gis aussi ñeneen suba. Mhm. ci 17h war naa gis sëñ Modou Kara. Mhm, d' accord euh, sa relation Karim Wade ñu demee. waaw su may relation Karim wadd euh, relation yi nga xam ne moom laa am ak sénégalais yi. Euh, am ko ak ñi nga xam ne yàgg naa leen di défendre euh, ñi nga xam ne muy Karim muy keneen walla ci beneen nationalité Euh, seen àq ak seen euh, yelleef dañ ko euh, salfaañee parce que laataa ma dugg ci politique dama nekk droit de l'hommiste di yëngu ci loolu ñu xam ma ci d'accord jërëjëf maître Abdoulaye Tine mbokk yi moom la ñu invité tey ci pencum réew mi ci rajo réew mi FM léegi nag ñu waxtaan ci li nga xamante ni moo jëm ci loi parrainage bi mm-hmm. ndax ñu uh-huh. est-ce que mën nga ma permettre ma tontu sa laaj ci premier ministre bi Ah, poste premier ministre bi. waaw poste premier ministre bi waaw poste premier ministre bi aussi. Euh, lu ko lal xam nga ñoom dañuy teste dañuy ñam rek euh, gis nga tey nii daanaka euh, boo xoolee Sénégal mën nañu jàpp ni Sénégal kenn yoru ko daanaka président ci boppam attanul yenn bi. parce que benn nit mënul lépp lépp. Mhm. mënoo ñëw ne yaay définir yaay appliquer yaay nommer. Mhm. yooyu mënta nekk. poste premier ministre du guléet nit di ko dindi fii ci Sénégal mais président ci boppam euh, lu mu ci jublu ci dindi poste premier ministre bi euh, ay mbirum efficacité gouvernementale loolu yëpp ay wax yu yàqu la ñu ngi nii ba inondation yu amee kenn xamul ban ministre la ñu war a yebal foofu parce que amul premier ministre et bu ci nekk am na benn bànqaas bi nga xam ne foofu lañ la taxawal donc li nga xam ne bu lenn li nga xam ne dafa concerner bànqaas yëpp daanaka ku ci nekk day jàpp ni bokk na ci mais du warul jiitu loolu taxawaayu premier ministre la boo xoolee ci taarix fii euh, poste premier ministre euh, ñi nga xam ne xam nañ mbirum yoon moom mooy avant euh, démocratisation yi en 1990 am na ay benn période bi nga xam ne nit ñi dañ ko jëloon di ko dindi mais gis nañ ne amul dëkk démocratie bu mën a taxaw dox jub te amul premier ministre moo tax ma ne tey lu mu ci jublu lenn rek la woon kaa ma wax la xam nga dafa ñëw wàññi euh, def juróom-ñaari at dégg nga mm-hmm. euh, waxoon ne juróomi at lay def mm-hmm. bu defoon juróomi at maanaam élection législative yi dañ koy def en même temps que présidentielle yi comme mm-hmm. nuñ ko narewoon defee mais donc pour la première fois ci histoire politiku Sénégal dafa dara am président bi nga xam ne day nekk ci diggu mandaam élection législative ñëw mu ragal dara que bu ma ñàkkee législative yi damay nekk cohabitation bu ma nekkoon cohabitation wala ñoom sax bu ñu jëlee parlement bi ëllëg ak si biir mën nañ ma juger pour haute trahison wala loolu pour nag ma mën a nelaw sama xel dal moom mooy dañuy dal di dindi poste bi ma waxtaan ak buun ne ko poste bi dem na demul parce que yaay secrétariat wu présidence mais damay ragal gars yi jot ci. loolu mooy explication euh, jërëjëf euh, maître Abdoulaye Tine léegi nag euh, mbokki auditeurs yi ñu leeralal leen benn mbir bala ñu ko laaj ci loolu loi parenage bi nga xamante ni moom ngeen fi doon dégg ci élection présidentielle yi. Mhm. ginnaaw nag bi fi loi bi bi ko fi Macky Sall tegee. Mhm. yow maître Abdoulaye Tine bi nga xamante ni yaa jiite union social libérale. yow ak yeneen parti yoo xam ne dañoo nekk ci kujje gi da ngeen a demoon CEDEAO kalaame fa réewum Sénégal ne dafa jalgati constitution loi parrainage bi baaxul léegi nag CEDEAO dafa euh, woolu réewum Sénégal mu war a wuy ji Abuja mars. Mm-hmm. Sénégal à 10 euh, heures léegi nag li ñu siy waxtaanee mooy euh, yéen loi parenage boobu noonu sax. lan moo leen ci naqari ak lan ngeen jàpp ne ak jalgate la ba ngeen dem CEDEAO. waaw loo parrainage bi lu ñu ci naqari moo naqari Sénégalais yi mooy mbirum jaay doole la dañu ñëw ne dañuy def loi pour segg ñan ñoo bëgg a nekk ay candidats ñu ne leen mais euh, lu waral loolu ñu ne ñu noo dañu bëgg a wàññi candidats yi mais boo xoolee en même temps ñu ne dañu bëgg a wàññi candidats yi. mais seen loi boobu ci boppam dafa permettre bépp sénégalais. <laughs> mun nga samp sa candidature parce que bu njëkk parti politique boo ko nekkul da ngay wuti dix mille ñu ne ñoom soxlaatuñu sax dix mille signatures cest dañuy jël parti politique yemale ko ak n'importe quel sénégalais. suñu constitution daa am lu mu teg aar ko droit international teg ko mooy statut parti politique. Hmm. parti politique mbooloo. Hmm. mënoo ñëw. ne moom mooy tolloo ak yelleef ak euh, nit benn nit kott ñu jël ko parce que da nga leen di vider de sa substance mm-hmm. loolu benn ñaareel bi moom mooy euh, lu lal loi wu parrainage bi loi wu bi du daar Macky Sall dafa xool gis nu politique bi laloo mu jàpp ne lii bu ma bàyyi mu am ay candidats yu bëri bu ñu coaliser deuxième tour dañ may daaneel donc foog bu am stratége def politique juridique maanaam daf ko utiliser yoon bi lu koy wone moom mooy euh, pare wuñu woon ci ni ñu tëggee loi bi ba sànq ci suba yi mënuñu la wax ci yan anam la ñu koy appliquer parce que ba ñu koy voté jënd naa wax fii ci presse bi ne loi bi ñii kenn du ko mos a mën a appliquer fii Sénégal ñu ne non di nga gis ak euh, teg nouvelle technologie yi yu bees yi di ngeen gis ne ñun dinañ ko organiser ma leen waaw maa leen di xaar. ñu ñëw ne sénégalais bu bëgg a dem wala parti politique da ngay indi mille signatures ñëpp wàcc ci lang bi wuti signature te amay dégg ay signature la ñu wax. ñëpp wut ay signature ñu ñëw nit ñi déposé ñu ne conseil constitutionnel ñu ne conseil constitutionnel moo nar a contrôler signature yi ma ne mais ci yan anam kenn mënu ma wax ci yan anam ñu toog ba ñu jotee affaire yi euh, gars yi jënnee. ne am na ay informaticien indi ay ordinateur euh, tapé génne ne ñi ngay déposé man déjà ba ma gisee loolu ci la sama ci laa ci génne suma loxo xam ne ñii euh, lépp la ñu nar a ko contrôler mais du signature. kon mu doon mu jëwuti parrain. si naa parrain déposé naa sama dossier mais gëmatuma woon démarche boobu parce que da ngay gis ne ñii euh, maanaam fii su parenage mhm. nit day signé. dégg nga de. bu signé conseil constitutionnel mais mënul dossier wu parrainage yëpp ku ci nekk ñu ñëw. ubbi sa signature bi nga xam ne moom la ministère de l'intérieur yor sa carte d'identité xoolaat beneen bi mënuñu ko donc finalement mbirum signature yi nga xam ne moom la ñuy wutee dañ ko teg fële lan la ñu contrôler ay numéro carte d'identité benn loolu moom arbitraire parce que teguwul fenn. loolu tax ngeen kalaame ji. non dégg nga waaw loolu lu ciy cib lu tax parce que tout simplement ay numéro carte d'identité la ñu jër rangale ne ñii la ñii doublon la mais duñ la wax lu tax mu nekk doublon. alors que conseil constitutionnel xam nga ci droit daa am lu ko lal lu tax ñu bëgg kalaame aussi loolu la bokk. Mhm. depuis ba droit xewee ci société yi pour nga wone ne yeewoo d'accord nga ci dara lu koy firnaal mooy signature. Mhm. ñu nekk ci dëkk bi nga xam ne. boo jëlee ay sénégalais téeméer li mu téeméer boobu daanaka lu ëpp juróom fukk mënuñu signer mhm. wala amuñu signature bi nga xam ne du soppeeku. Mhm. am na sax suñuy maam yi nga xam ne dañu bind ci seen signature na c'est pas signé mënta signé. Mhm. ki nga xam ne nag kayitu dañ ci bind na c'est pas signé. boo ñëwee bëgg ma gëmloo ni euh, contrôler nga signature bi nga xam ne amul man daal la clamer yoon. di xaar nga teg ci table bi ah. nee ma. que naan aadam yan jinde ñoo ñëw. contre le Sénégal kañ lay wuy ji CEDEAO 4 mars à 10h Abuja. d' accord léegi euh, maître Abdoulaye li jaaxal ñëpp te ñëpp di ko waxtaanee fan yi mhm. euh, dañuy wax ne Sénégal la 4 mars bi tey. Mhm. su wujjee Abuja 10h. Mhm. yéen ñi kalaame ji woon def recours ngeen am ndam. bu ngeen amee ndam léegi mandat Macky sàll bi. dafiy yam CEDEAO boobaa lan mooy nekk taxawaayam ak yéen lan mooy nekk seen combat. waaw ñun lu des ñooy dox dox bi. Euh, bu ñu amee dëgg euh, may fàttali nii mhm. euh, CEDEAO ci boppam nekkul ci ay prérogative am mu ne ndax élection bi dañ ko war a neenal wala waruñu ko neenal daf ñuy tontu ci luñ ko laaj laaj bi moom mooy loi parrainage bi ci nuñ ko tëggee. baaxul teg ko waroo na mhm. salfaañe na ponk yi nga xam ne. engagement internationaux yi nga xam ne moom la Sénégal jël dans le pacte sur les droits civils et politiques c'est-à-dire dafa créer ay obstacles administratifs yi nga xam ne day tere parti politique yeeg citoyens yi parce que droit daam lu ko lal moom mooy sécurité juridique booy dem di déposer dara dañ la war a wax avant ngaa déposer ci yan anam lañ lay nattee ñoom dañuy ñëw ñu déposer ba ca ëllëg sa wala ay fan ñu soog a toog méngoo benn ñaareel bi moom mooy euh, yoon ndey ji la day tëddee njaxanaay ah, bu ngeen amee dëgg mhm. nu ngeen def bu ñu amee dëgg dañuy jëlaat suñu jugement ñëw gis conseil constitutionnel fii ci Sénégal ci Ndakaaru mhm. ne ko am na mbir bu bees loolu yoon moo may chaque fois bu amee benn situation bu lu bees amee nga ñëwaat ñu ubbiwaat dossier bi ne ko sa waay foog ngeen ubbiwaat dossier wu prestation wu serment ñu ne en lu xew ñu ne leen jàngat leen fii ñoom bokku ñoom i Sall constitution wu Sénégal moo ne euh, traité traités ou accords régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à la loi ñoom dañuy reconnaître conseil constitutionnel mosu ci am xel ñaar autorité boobu dañuy ñëw ne ko mu ubbiwaat dossier wu prestation wu serment bi benn ñaar moom mooy Euh, mbirum élection yi ça veut que Macky Sall ci anam yuñ ko fale euh, jaarul yoon donc foog ñu indi ay élection anticipée luy bees ci élection anticipée yi mooy di ma la wax sànq comme constitution bi dafa ne nit fii mën too weesu ñetti mandat boo defee mandat wu juróom-ñaari at même boo defee mandat fukki weer bu amaatee beneen élection mënoo bokk donc moom moom du mën a bokk. Euh, euh, am nga euh, xel ñaar mais tamit xam nga maître Tine li ñu jaaxal mooy CEDEAO tey yàgg na fee wax ay dogal mais dañuy gis ne Macky Sall du ko respecté comme kaawu Karim Wade. Mhm. waaw mais loolu luy changé. ci situation bi am na différence parce que man du ma jël jugement bi dem palais naan Macky Sall est-ce que da ngay respecté wala doo respecté. Mhm. dégg de mhm. fii dafa am séparation des pouvoirs. juge bi nga xam ne mbirum élection ci ay loxoom la nekk mooy conseil constitutionnel mooy ay juge laay dem gisi juge yooyu. daanaka ña fa nekk am na ñi nga xam ne man ñoom samay professeur lañ dégg nga de mbirum droit international bii may appliqué di ko pratiqué ñoo ma ko jàngal benn. constitution bi nga xam ne ñoom moo leen fa teg article 79 moo ko wax ñoom ci seen jurisprudence c'est-à-dire même ba Sénégal waree en 1993 sous Abdou Diouf ratifié traité wu OHADA ñoom dañu fàttali Sénégal que boo ko defee abandon de souveraineté lay nekk donc ñooñu amuñu ci xel ñaar. Ah. donc donc bokkul ak Karim Wade bokkul ak. waaw mais CEDEAO est-ce que mos naa comme li nga wax ni dogal bu mel nii bu dee hmm. am na tey ñu jox leen dëgg. Hmm. dafay nekk loo xamante ni tey bu dee cour suprême euh, conseil constitutionnel euh, ànd na ci dafay nekk loo xamante ni lu bees lay nekk ci Sénégal mais hmm. euh, est-ce que CEDEAO mos naa jël dogal yu mag yu mel noonu ci yeneen njiitu réew ci Afrique. mbirum élection. Euh, CEDEAO mos na ci prononcé wu avant suñu requête bi ba Blaise Compaoré daanoo euh, ñu jël mal ay élection nit ñi dañu lal benn loi ne ku liggéeyoon wala nga bokkoon parti Blaise doo ci bokk ñooñu ba ñu attaqué CEDEAO ne li amu leen droit def ko Burkina dafa dellu ginnaaw dindi loi boobu. benn euh, man nag dama yàgg def li nga xam ne kenn mësu ko def yàlla di def nii man lu may def dama koy natt peut-être mu suturaal ñu ci ñu am ci ndam ba at bii passé maak sama naataango Assane Ndioma Ndiaye ñoo nekkoon euh, avocat wu euh, jabaru Nino Viera ndem si yàlla Nino Viera nga xam ne dañu ko rey ci ay circonstances yu ñaaw mu nekkoon président wu Guinée Bissau ñu mmh. attaqué dem clamé CEDEAO ne que Euh, ci état dafa waroon aar dundam mais waruñu woon comploter bàyyi ko ay militaire di ko mettital di ko rey ci anam yu ñaaw yi bañ ko defee tam ñëpp dañu ne cour bi mësul rendre jurisprudence mel noonu loolu mënta nekk génnal ñu ay argument yàlla def na ne ñun CEDEAO jox nañu ndam ba condamné na ko ba nekk na jurisprudence ma gëm ni fii aussi ci Sénégal ba ñu demee ci élection yi 2012 mu am collectif des victimes de violences électorales. mu am benn dragon bi nga xam ne moo lëmbe woon réew mi di daw fu nekk di jaar ma ne lii duñ ko seetaan foog ñu topp ko porter plainte pour contre euh, as ñi nga xam ne ñoo faatoon ndam si yàlla du Diop ñëpp dañ ma ne woon dragon police ku mu rey yaay yaay yaay perte dara du ci am condamné nañ état fay nañ ay dommages et intérêts novembre bii passé policiers yi ko doon dawal yoon dal na seen kaw. condamné nañu donc moo tax li may wax moom mooy man dama gëm ni ñun intellectuel ñi nga xam ne yàlla am na lu mu ñu dénk dañu am responsabilité ci société bi defuñu ko parce que dañuy koy def wala dañ ci wut ndam mais lu mu bëgg moom mooy delloo si xel yi nit ñi xam ne ponk yeeg charte yi dañ ko war a respecté buñ ko wàccee tam peut-être dina am boo ñëwee tey ñu jub élection nga ne da ngay segg nga ne da ngay njaaj ba falu jàppal ni ni ngay toogee boo moytul du neex parce que bés bés na ñëw ñu woo la mais maître euh, Abdoulaye Tine une minute euh, lu jëm ci euh, yéen ñi kalaame ji état bu Sénégal ci fi nga xamante ni tey moom mooy CEDEAO Abdoulaye Wade comme ni nga ko waxee sànq muy avocat yow ngay avocat juriste est-ce que waxtaan ngeen ci ak lan la ci xelal ah, waxtaan nañ ci mënuma ko wax ni parce que mbirum stratégie la mhm. mais am nañ ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne dana gën a dooleel taxawaayu dossier bi mhm. Euh, jërëjëf euh, maître Abdoulaye euh, Tine avocat au barreau de Paris nekk spécialiste des relations internationales nekk nag njiitul union sociale libérale ñu wax ci li nga xamante ni tey moom mooy ambassadeur bu France gis nañ fan yële mu ñëw Sénégal yëkkati fi kàddu wax ci autoroute APH bi wax ci li nga xamante ni mooy terre bi ak mbiru Guy Marius Sagna yow kàddu yooyu nga xamante ni ambassadeur bi yëkkati na ko lan moo ci saxalaat en tant koo xam ne xelam na jëm ci mbirum wàllum relation internationale. waaw peut-être boo ko jëlee ci poñ bu ci nekk am na li ma d'accord ak moom am lu ma d'accord. si auto si affaire autoroute bi euh, lu jëm ci wàllum négocia defaat euh, renégociation euh, contrat bi. waaw loolu man dama jàpp ni amul benn sénégalais bi nga xam ne jàppul ni autoroute à péage bi dafa cher ci anam yu ñuy faylu dafa weesu doole sénégalais ordinaire. da ngay boobu booy jël dara da ngay yemale ci suuf xool ci gën a néew doole ci sénégalais est-ce que attan na lii mën nay dem di ñëw nu ko neexee parce que autoroute bi nekkul pour dem aéroport kese daa am ñu dëkk Kër masaar am ñu dëkk Malika am ñu dëkk feneen ma jàpp ni contrat boobu tey nu mu laloo euh, yoon may nañu ñu renégocier ko dans l'intérêt du Sénégal même bu dee. comme nu ñu koy wax parce que dégg naa peut-être ay membre Eiffage ñu ne noo kenn mënu ko doon négocier parce que amul clause. Mhm. Euh, mbirum concession service public la. daa am li nga xam ne euh, ci yoon état moo ko waroon doxal mais état day wóolu nit. jox ko ko jox ko ko. Mhm. loolu comme dëkk bi ñoo ko moom suñu souveraineté la. droit public daf la may saa su nekk bu dee intérêt wu population yi justifié na ko. nga ñëw renégocier donc loolu amul sikki sàkk foog ñu négocier ko. benn falaay dee na. même pour ñoom ci seen bopp ñi nga xam ne ñoo yor concession bi. Mhm. seen intérêt la pour ñu bëgg ko ñu renégocier ko bu dee bëgg nañ fi yàgg. Mhm. sinon dañ ñàkk contrat bi. d'accord lu jëm ci euh, wàllum ba tey ambassadeur bi li wax ci mbiru euh, Guy Marius Sagna ak euh, taxawaayu société civile bi. waaw mbirum Guy Marius Sagna moom dafa nekk lu ñuy xeex ñoom. Euh, xeexu beneen tàng la beneen jamono la. peut-être moom dafa jàpp ni que. Euh, waaw ci lu muy ci man dama jàpp ni peut-être ñoom seen xeex bi euh, foog ñu jëlaat formulation bi parce que bu ñu ko tënkee France dégage ak yooyu day mel ni rek dañu ciblé. benn askan. mais mais ambassadeur bi li mu wax maître Tine. est-ce que yoon la woon maa maa ngi ciy ñëw non xam nga ambassadeur ci boppam. Euh, du moom moo ñuy wax nan la ñuy doxalee suñuy société civile. Euh, man maa ngi dund France daanaka ñaar fukki at. Euh, tous les jours may dégg Front nationale di saaga immigré yi di leen wax lu leen neex dégg nga de lu nekk ñu yekkuñu ko te yàqalul ne démocratie moo leen maañ ñu wax seen xalaat ñooñu sax du ñu ay activiste parti politique la <laughs> nga xam ne c'est légalement constitué ñuy toog ci rajo yi di wax mais kenn mënu leen tere parce que liberté d'expression la donc dama jàpp ne du taxawaayu ambassadeur muy ñëw di ñu wax nii dañu war a waxee yooyu yooyu dama jàpp ne euh, donc maanaam weesu na fu mu waroon yem par contre fi ma àndeek moom mooy ci mbirum terre bi hmm. c'est-à-dire ba mu waxee nii euh, fii avril bii di ñëw terre bi mënul la daw Euh, ma dégg euh, gouvernement bi ak ay walla ay ministre ñoom sax déggoowuñu seen biir parce que am na ñu bind ay not pour ne ñoom loolu ñu ci jox ko ministre des affaires étrangères mu bloqué ko finalement xamatuñu lu muy nirul mais lu ñu wax noonu lu ambassadeur wax. Mhm. loolu intérêt wu population yi la maa ngi fàttali euh, bato bi suuxoon la Joola waroon def téeméeri nit. Mhm. ñu def ci ñaari ñeenti téeméeri nit. Mhm. mais ba mu suuxee. Euh, mais surcharge bi bii lu ko loolu boo ko indi loolu donc euh, France dafa am lenn li nga xam ne moom la ñuy woowee obligation de sécurité. Mhm. fii ñu am ko maanaam euh, moom yoon may na ko bu wax ci xam nga lu tax. Mhm. parce que terre bi dëkkam moo koy jaay. Mhm. dégg nga de société bu nekk ci dëkkam moo koy jaay. suba bu amoon problème dañuy ne woo leen tubaab yi ñooñ jaay train bi dégg nga de ñoom dañu toog jël ay données analyser parce que. dañuy toog tous les jours di xool gis nañ ne am na ay localité boo demee ay mbaaw wala yeneen ni caaro ak yooyu fi nga xam ne fa la train bi nar a jaar ci vitesse bu rëy mais xale yi dañuy ñëw di tëb di jëm école parce que passerelle amul. Mm-hmm. Euh, mbir mi ligne yi ci boppam mais courant bu doy waar moo ko nar a doxal. Mm-hmm. moom wax na ko train bi ci boppam technologie bu bees la ñoom ci seen bopp sax amuñu ko foofu jaay dañ ci benn Danemark jaay ci beneen dëkk yooyu mm-hmm. yooyu yëpp. foog ñu tàggat ko xool nattu ko nattaat ko mais mais terre bi terre bi est-ce que amal na njëriñ askan bi. non man gisuma ci njëriñ gisuma ci njëriñ. njëriñ bi xam nga lu tax ma ne la gisuma ci njëriñ tey. Mhm. boo demee hôpital la daan teg wala nga dem Abass Ndao boo moytuwul am na ñi nga xam ne dañ fa faatu parce que ñeenti junni kese moo leen fa téye parce que dañuy wax dama jëndi ay seringue jëndal ay garab loolu tous les ñi ciy teg suñu bopp ma foog ne priorité yi du foofu tey fii Sénégal kenn waratu fi dee parce que bi nga xam a nan la autoroute bi jaar déjà te bi pare na benn. ñaareel bi moom mooy TER bi man dama ñëw def benn simulation jël suma oto topp ko ba fu raay bi téene maanaam jam ñaajo mhm. TER bi yeggul mu dese la 18 kilomètres. Mhm. pour yegg aéroport ma ne waa yegg si naa fii 19 heures léegi dama am sama vol war koo jël. léegi nan ngay def ñu ne dangay jël taxi nangam jaar fii déjà foofu déjà am fa taxi moo gën a metti que jëlee ko fii dakaar balaa ci caag nga dem benn ñaareel bi njëg bu mu nar a euh, jar pour ticket bi maa la wax loolu ñi ci yëg du bëri et puis ba ñu koy def loolu nekkul li nga xam ne ànd na ak nu sénégalais yi di fonctionner xam nga booy def dara da ngay xool ñan nga koy jox sénégalais fii ku ciy dem aéroport wala ngay ñibbisi am na ku la mën a gunge wala ku lay jëli c'est très nga gis benn sénégalais bu ne cépp aéroport di wër lan moo ko yóbbu dëkkam finalement lu nar a am moom mooy dañuy sanitaire bi euh, sénégalais yi ñi ci yéeg bëriwul et puis euh, ñaata sénégalais ci seen jiir dund ñoo ciy dem aéroport bëriwul daanaka benn club bu privilégié la ñooy dem di ñëw ñooñu am nañ ay moyens donc pendant boobu waroon nañ xool est-ce que ndax faj suñu malade yi wala tabax teer man bu doon man la damay faj maladie bàyyi TR bi parce que ñooñu mënoo ñëw tey nit ku feebar mënul faju nga daan ko émergence 2035 mais kooku dara waxu ko ne fi ak 2035 dina fi nekk. d' accord maître Abdoulaye Tine euh, ci euh, deux minutes euh, gis na ne njëg yu bëree bëri ñoo ngi yokk lu ci mel ni courant bi carburant bi ak ay ceeb ak diwlin ak yu demee noonu yow nga yàgg xeex ak a yelleef doomu aadama ñu gis ne justice sociale président Macky Sall wax na ko fi mais ba léegi nii daal dafa mel ni tolloole amul amagul. non mais loolu slogan la wax ju yàqu la dañuy wax pour wax rek justice sociale fii. Euh, bu dee nit ñi am na ñu yem am na ñi nga xam ne ñoo gën a yem ci seen biir euh, lu koy firnaal comme ni nga ko waxee mbirum yokku courant bi déjà état mënoon na ko éviter parce que sénégalais yi dañu sonn. waxoon yenn naa fi ne état mënoon na ñëw jouer sur la TVA. parce que moom courant boo fay boo xoolee sa facture am na benn partie bi nga xam ne TVA ngay fay. donc loolu bu ko état dindi woon donc même bu dee Sénélec yokk na euh, donc dina permettre Sénélec mu am koppar yu mu war a am mais day ñëw euh, tas ak moom donc amoon ay solution yu bëri nga xam ne mënoon nañ ko utiliser mais boo xoolee ak ak yelleefu sénégalais li ce qu'on appelle les droits économiques et sociaux euh, boo ko waxee mu ne la dama créer couverture maladie universelle couverture maladie universelle mooy li nga xam ne day ëmb ñëpp du bàyyi kenn dégg nga de am na France am na yeneen dëkk. bourse sociale non moom laa wax ak bourse sécurité sociale. Ah. mais tey fii ci Sénégal amul benn sénégalais bi nga xam ne mën na la wax ci yan anam ngay mën a jaar pour am ko wala boo ko ñàkkee ban mooy voie de recours ci ban tribunal nga koy. mën a jooyee. donc ça veut dire que moom day woote égalité des chances mais même nu mu koy joxee amul égalité des chances moo tax ma jàpp ni Sénégal. foog ñu delloo si seen xel ñu jëlaat doole ji jébbal ko ay nit yi nga xam ne gëm nañ état de droit gëm nañ justice sociale ñu teg ay ponk ak ay charte yi nga xam ne tey suba bu ñu newee dañ koy joxe euh, du ñu xam ne boo xamul maire bi wala adjoint doo ko am mais dañuy gis ay critères yi nga xam ne bu dee am nga carte d'identité rek di nga ko am. d'accord léegi euh, maître Abdoulaye Tine yow yaa jiite union sociale euh, libérale yow si dialogue nationale bi. dem nga ci yaa ngi ci wala wala ba tey wala génn nga ci. non ba ma ci duggee xool gis mbir mi xaw ba lu may nirool génnaat naa ci. waaw mais lu yow yaa ngi wax sax loi parrainage ndax mënoo woon a dem si dialogue national waxtaanee ko foofu. loolu moo taxoon ba ñuy ubbatee national bi. nga dem bëri fëgg seen dënd ne du ñu dem ne ma bul dem ma ne damay dem parce que euh, buñ la woowee foog nga dem sinon day ñëw. ne gis nga sama opposition responsable ñu woo naa dañu dem mais man ba may dem moom mooy euh, demuñu fa pour def figuration bu ñu fa demee tam li nga xam ne moom la ñu gëmoon di ko woote dañuy toog ci table bi euh, défendre ko ba ma ñëwee gis ne ay pexe la ñu lal pour ñëw def benn affaire bi nga xam ne comme assise nationale yi day nekk day ñëw ne man maay seppi man maay ci wala même lu ñu nar a tënk moom dafa am majorité teg na ay genre organes yi nga xam ne finalement euh, ay nitam ñooy jàllale mbir mi maa ne lii du ma ci dialogue bi teg ay caaxaan wala. non dialogue bi ay caaxaan la. d'accord sénégalais yi. Uh-huh. nañu jël seen responsabilité ñu dem ci jongante yi di ñëw. may fàttali ni Macky Sall am na agenda xam na exactement ban jour ak ban léegi ñu wax ci union sociale libérale sa parti politique bi. Mhm. Euh, est-ce que fi mu nii nag euh, national la wala départemental wala international wala fan la yem doole bi. sama parti international la euh, déjà laata ma dem ci élection yi. Euh, Bamako créé, déjà il était implanté dans 357 communes sur les 500. D'accord 300 pour, pour, pour, euh, 357 communes ci 500 communes yi amoon dégg nga de loolu 2018 ba ñu wut ñu parrainage yi mais dañ ko implanté Afrique implanté ko Amérique implanté ko asi ba Bangkok moo nga fa benn ba ñu ko defee dañu créer lu ñuy wax ay laboratoire d'idées ay lël yi nga xam ne dañu fay taataan xalaat dégg nga de soo xoolee sama euh, laboratoire d'idées Paris mu ngi tudd institut social libéral jot nañ suñuy këyit depuis 2018 mu taxaw fa am même taxawaay que yeneen laboratoire d'idées yi nga xam ne moom la parti yu mag yooyu yor foofu dégg nga de mais mu nekk foofu ñu même am même laboratoire d'idées bi fële ci Amérique ci état wu Saint-Louis Ibrahima Diong di ko diriger mais aussi avant boobu fii laa defee lancement bi. ci place de mais mais maître tamit parti moom il faut nga dem ci àll bi kaw gi. waaw mais. fu nekk mbokk yi bawol bawol yi jolof jolof yi. foofu yëpp dem naa fa euh, yàggul rek weer bële passé def naa tournée bu mag dem naa dans le Sine Saloum dem naa Marlodj dem naa Joal fu nekk dem nañ fa day ñu ngi Saint-Louis ñu ngi Sédhiou ñu ngi Kolda donc comme li ma dañu jël parti sànc ko fépp et que nekkul loolu. kese parce parti boo xam ne da nga bëgg a dajale ay intellectuels rek wala yow ñi nga tudd intellectuel. non man. teree laa na ñoo xam ne a jàng ba pare mais am xam-xam. bés boo ñëwee. sama réunion wu parti di nga gis ni eh, ñëpp ci représenté ba ko tegee. dañu teg benn euh, mouvement des élèves social euh, libéral mu am ay étudiants Saint-Louis am ay étudiants Bambey am ay étudiants ISRA mais am na ay travailleurs ordinaires dimanche bi passé recevoir naa fi lu mat cinquante travailleurs. est-ce que am nga ay cadres yooyu. mais cadres yi kay loolu kay manqué wuñu ko parce que laboratoire d'idées yi ku ci nekk ay nit yi nga xam ne dañ leen euh, ràññee ci seen taxawaay sur le plan international. nationale wala sur le plan international. fi mu nii fan la parti bi toll fi mu ne nii yan activité la parti bi def est ce que yéen a ngi def euh, yéen ngi animé parti bi. ñu ngi animé parti bi tous les jours ñu ngi lal ay programme et que le 4 avril bii di ñëw. donc am nañ benn activité bu mag bi nga xam ne prévoir nañ ko ak opposition bi Paris fii aussi ñu ngi am ay événements ci ba plus tard que dimanche bi passé rek étudiants yi am na lenn lu ñu doon organiser. Mm. et ci fan yi di ñëw. bu dee sànni nga sa bët ci biti. di nga gis taxawaay mais mais maître li ngay nekk Sénégal ñu bari dañu wax ne bëriwul est-ce que am na ku la fi représenté koo xam ne dina mën a doxal parti bi. non loolu euh, nit ñi lu ñu jàpp ci seen bopp ñu bëri. Euh, li may passé fii ci Sénégal ci ay fan ci weer bi moo ëpp lu Macky Sall di passé lu tax depuis 2012 fii boo jàppee weer bi du ma toog fukki fan ak juróom yi nga xam ne passé wu ko fii damay passé benn parti fii peut-être beneen parti à l'international parce sama liggéey moom may yóbbu maître ñoo ngi lay sant di la gërëm waa baa leen di jëfal ci waxtaan bi kontaan nañu ci opportunité bi ngeen ñu jox ñu waxtaan ak sénégalais yeeg suñu mbokk auditeurs yi ñuy déglu ci ay question yi nga xam ne solo na leen jërëjëf euh, maître Abdoulaye euh, Tine avocat au barreau de Paris euh, yow nga jiite union sociale libérale moom la ñu invité woon tey ci émission pencum réew mi jërë ngeen jëf ba samedi bii di ñëw incha allah